rapport Cour des comptes bu jëm si yorinu société wu Dakar Dem Dikk ba léegi mu ngay wëy bi yoon nag ñi doon liggéeyee foofu ca Sotrac ñoo daal di génn gën a dugal ki fa nekkoon directeur général di maître Moussa Diop yi les travailleurs nag daal dinañoo déggal tuuma yi nga xamante ne teg nañ ko si kaw ndoddam Dakar Dem Dikk daal marché Sandaga la général yi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo fi jaar lu leen neex lañ doon def ci Dakar Dem Dikk soo xoolee Dakar Dem Dikk li nga xam ni Moussa Diop def na ko fa su fekkee noonu tegu na ci yoon rek te muy suñu alal ñu fay ñu ba wis ñu yile ex agent Sotrac nag ñoo ngay ñaawlu niñ leen beddiwee ci conseil d'administration bu Dakar Dem Dikk mu nekk li nga xamante ne jaarul yoon ndax daal na ñoo xam ne ne que Sotrac nekk na ñaareelu actionnaire ci bile société ginnaaw état du Sénégal mu daal di am 13,13 pour cent si capital ou entreprise bi. nous devons être représentés juridiquement. vous savez le conseil d'administration fonctionne selon des règles. dañoo war a am ñu ñu teewal foofee ca conseil d'administration bi ndax xam ngeen ni conseil d'administration ni muy doxee warul am benn yoon su dee membre yi ko seek matuñu ñun nag ñetti at a ngi nii jàpp ñeenti at kenn convoqué wuñu. voilà trois ans ou quatre ans que nous n'avons jamais été convoqués. il est ex-travailleur mooy yoon daal di def liggéeyam. na justice noonu la ñu yore woon Dakar dem dikk caxat caxatee yi nga xam ne moom la doon caxat caxatee alal Dakar dem dikk te ñu bokk ci ñu beddi ñu kenn informé wu ñu bokk ñu ci lenn loolu nag moo tax tey ñu woote pour appeler les autorités ñu. jaarale Dakar ca fàttali ancien directeur général bu Dakar Dem Dikk maître Moussa Diop daal di woon na rek weddi yi lee tuuma yi nga xamante ne Cour des comptes daal woon na ko teg si kaw ndoddam loolee nag ginnaaw bu mu jàkkaarloowee taskatu xibaar yi si benn fan si weeru mai atum 2024.